asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam dalal seen émission li ku Dakar TV te nag dañu étudiant boo xamante day dessin macha dessin yu yu yu am solo bu dañ koy nuyu ba émission li ci faram-fàcce dessin yi nga dessiné monsieur Ndao salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam sama si maa aussi invitation bi parce que li dafa am solo day permettre artistes autodidactiques di wane sen bop aussi bon di nuyu ñep ñuy suivre à à travers Aro Dakar franchement amuñu sen fay quoi ñu ngi remercier bu baax baax. tour bi naka la fàttali eh, internet ci tour bi. bon man maa tuddu Abdou Ndao étudiant à l'Institut Polytechnique de Dakar. Hmm. Euh, étudiant la mom Abdou Ndao macha allah tamit di dessinateur ah. Euh, dañ koy laaj rek depuis kañ nga dugg ci métier bi nga xamante ni mooy dessin. bon dessin bi moom mën naa wax ne benn don la boo xamante ne yàlla moom ko jox parce que depuis enfance la à l'école primaire euh, amoon naa benn maître bu tuddoon monsieur Diène euh, moom aussi dessinateur la woon si moom laa doon xool au début di def ensuite mooy suivre sama benn grand du nom de Arona Bodian Sarr mu may jàngal lu bëri ci wàllu dessin ba heure bii nii franchement maa ni remercier aussi au passage merci. bi nga bi ngay dooree bi nga nekkee xalé ba légui ya ngi dessiner. mais kagn nga ci euh, kagn bañ moment nga xamné deugentane war nga jël sa temps comme ni ngay passer ni sa temps consacré au dessin. Bah voilà au au début euh ay tiaxan la defon rek parce que doon naa jël samay xarit len dessiner gratuitement ni comme ça parce que passion la won ci man rek dama la fo mais par la suite ma gis gars yu bëri ay dessinateur yu commencé génn di wane seen bopp aussi di ci gagné dara léegi samay xarit euh, di euh, contacter ma ne ma pourquoi pas yow parce que talent bi moom fi ba pare donc il suffit juste nga éveiller benn génie bi nelaw si yow rek c'est tout après ci laa commencé nak euh, di def ay portraits commencé di si fayee ko ndànk-ndànk di xool ndax dina dina dox bi mu commencé dox nak après ci laa si ci laa si gën a dugg nag gën a dugg waaw franchement instant yi moom dama déterminé mom pour continuer job boobu non né nga mu ngi dox mu ngi dox euh, manam euh am nga sa place bo xamanteni dang ko ubbi wala am nga ay ay ay partenaire yo xamanteni ni yaa ngi ak. bon pour l'instant mom xamna étude études amaguma place fixe boo xoolee suñu kër laay lay lay liggéeyee ma ngi dëkk Mermoz euh, mais ma ngi jógee Tataguine région de Fatick voilà den nuyu au passage bon pour l'instant sama suñu kër laay lay lay liggéeyee. bon partenaires yi moom pas tellement parce que souvent damay gagné ay chantier si euh, camp yi camp militaire yi comme camp militaire Moussa Mawla Baldé man maa ko maa fa doon dessiné maa ko décoré ak yenn hôpitaux yi aussi pour l'instant si loolu la ñu yemagum ba di xaaragum études yi ok. li ngay dessiné de ay lan lay doon ay thème lay doon wala ay fait de société wala loo xamante ni da ko dund rek nga jékki-jékki rek daal di jël sa sa sa sa crayon rek bon comme ni ñu ko gisee nii moom aar moom ku ko wax aussi xamné dafa yaatu bon souvent da ngay ñew am lo xamné dafa ne sa xool nga exprimer ko à travers les crayons euh, des fois da ngay am portrait rek nit day andi photo nga reproduire ko sous forme de portrait au crayon wala à la peinture aussi euh aussi mën nga am ay tableau yo xamné c'est thématique day wax ci ben thème ñu na le thème bi nga wara wax nga dessiner ci comme œuvre bi ma don jema dessiner fi esquisse bi li ci ben thème lay wax après xamna naa dinaa ko jema expliquer ni mu aussi dañuy def ay tableau art euh, décoratif mais aussi dañuy peinture cœur waaw loolu bokk na si aussi waaw. peinture kër yemoo ci rek mais comme ni nga ko waxee dama bëgg ñu dellu si waat euh, ci ci li nga xamante ni dessiné nga ko suñu kanam ne nga ma ne thème na ça parle de quoi. voilà dessin bi moom benn esquisse bu ma def la nii rek parewul carrément mais ça veut tout dire quoi parce que dama nekkoon université publique dama def Cheikh Anta Diop 3 ans avant may ñëw fii nii IPD gis naa condition étudiant ni ñuy dundee foofu dafa métti lool lool lool ba tax na ñu bëri dañu abandonné ndax lool non si lool la euh dessin bi si lool lay wax parce que bo xol li ma dessiné fii nii benn étudiant la bu diplômé ba paré euh taf ba kanam yi di joy voilà di nga gis ben lub ñi ci bët bi ça veut dire que dafa xol liggéey ba son amuko mo moo muy joy dessin bi en résumé euh condition défavorable étudiant yi ak euh, après le après le diplôme Euh, chômage bi ñuy nekk si loolu lay wax nii voilà. macha mu nekk lu am solo loo xamante ni dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que nee na émi kii dessin yi thème la te dëggantaan gëm nañ ko ndax étudiants yi am na ñoo xamante ni carrément sonn nañ dañuy da ngay dem ba liggéey toog da ngay dem ba am sa diplôme. toog doo am ci loo jàpp macha allah dañuy lancé message njiitu réew mi nga xamante ni sénégalais yi falaat nañ ko rek mu gestu leen bu baax a baax mais ngeen ne dundu bi foofu noonu université dafa metti en tant que étudiant faw ñu faw ñu dugal def ci benn benn parenthèse rek. voilà euh, képp ku jaar université xam ne ne dund bi moom foofu man dafa dafa métti lool lool lool sax parce que déjà logement yi métti na. Euh, chambre yi xat na lool lool lool man def naa université trois ans la wax léegi bon bu dul loolu aussi euh, euh lekk bi université lekk bi aussi war nañ ko xoolaat bu baax a baax baax franchement sen esoti war nañ ko gëna mëna mën élever bañ dund leneen parce que yaakar na né réew mi bo waxé lu koy doxal rek jàng see bok donc bo respecté wul no étudiant yi bo respecté étudiant yi kon yaakaar naa développement bu ngay woté mënul mënul dem franchement. mais mais yeen étudiant yi euh, buñ né développement da ngeen ci wara japp jàpp instant bu baax a baax mu ñu ñu nekk en voie de développement est-ce que nan nga gisee ñi nga xamante dañuy yaq

am seen benn groupe étudiant euh, di leen neexal pour ñu génn yëngal ñu ne étudiants yi yëngal voilà. ñooñu di yëngal du ñu ay étudiants. non souvent mën na nekk étudiant mais dañoo dañoo dañuy politique voilà parce que ñoom euh, xeexuñu ngir intérêt université bi xeexuñu pour intérêt étudiant yi mais dañuy xeex ngir seen parti parce que am na ku leen ku ne seen ginnaaw ne leen yëngal leen pour état bi ñëpp xam ne yéen dara doxal fii nii alors que c'est pas ça. tey benn minimum étudiant benn cent étudiant génn barre bi taxul ñu ne étudiant yi ñoon grève parce que ñooñu matuñu sax 1 pour cent yi. ay étudiant lañ dafa lañ nekk. waaw ay étudiant lañ mais bu ñuy bu ñuy xeex bu ñu mbubboo étudiant yi nañ xeex li euh, seen seen propre intérêt. message ngay lancé ñoom ñooñu yow étudiant yéen ay politiciens yu mag yi nag yéen rek <laughs> ban message nga leen di lancé. bon pour étudiants yi en tant que ñu ne ay étudiant lañ ay intellectuel lañ ñoom war nañ xoolaat li ñuy def bu baax a baax a baax. warañu mën a génn di toj dèjà loolu moom sant ñu ko kenn kenn kenn kenn génn di toj yow ya, bis bi ngay toj ñoom bis boobu yaa si dugal après parce que voilà doomu autorité bi dugg si autorité bi dugg si bis bi ngay yàq yow yaay ya, ñëw di si dugaat donc nañ xoolaat bu baax la ñuy def nit li nga bëgg mu nga woo xeexte doo doo reyante doo sànnente voilà ñëw jaar la si yoon rek ñu dellu si waat ci ci ci métier bi dessin dessin bi ñu nekkoon léegi nii ah, comme que étudiant la mënu see ñàkk ñu def benn parenthèse rek mu daal di ñaax mbokk étudiant yi bi ñu leen di ñaax itam na mu ko waxee bus yéen a ciy dugg yéen ni doomu doomu autorité dugguñu ci doomu ñeneen ak ñeneen dugg na ci mën nañu marché mer mais ñu bañ di yàq dëggantaan du ci baax lool. ndax ñoom nee nañ dañoo bëgg ñu développer ku nekk envoir voie développement nag vraiment doo yàq ndax bu ñuy tabax ngay toj duñu ñu a euh, du mës a baax ah yow yow euh, monsieur Ndao dañ lay jaajëfal bu baax a baax te gis nañ liggéey bi macha allah sell na sell na trop ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax yow nu mu tuddati ku man su ma indi woon sama sama benn photo mën nga ma da ngay da ngay repré da ngay defaat même chose dessinel ma ko même chose ak main waaw non la fa la fa comme la au euh, nit ki dalay photo wax à parce que à logiciel dara à bon métier bi ci expression intérieur. parce que boo xoolee da gis si œuvre d'art boo gis boo xoolee di nga xam artiste ba mu koy liggéey si ban position la nekkoon man boo xoolee message yi may joxe si œuvre yi moo moo mu gën a neex si affaire bi daal si liggéey bi voilà. nga ciy dund loo xamante ni boo sañoon daal doo ko ci dund. Euh, li ma si dund bi moom lenn laa xam ne franchement su ma sañoon mu mu changé mu changé lool lool lool parce que neexul aussi nga nekk artiste xam ne ni yow mën nga li ngay def comme yeneen gars yi ñu jox leen esthétique boo xam ne joxuñu la joxuñu la ko. franchement loolu rek moo ma métti ci ci aar mais à part ça moom lépp naa yes. mooy maanaam ñu xeeb la waaw ah, voilà parce que dañ ne boo Sénégal fii boo jaaru école des beaux arts rek ñoom duñ la considéré comme artiste alors que ñu jaar école des beaux arts li nga mën lañ lañ mën te mënuñ loo xam te ne yow mënoo ko en fait donc waroon nañu mën a xool ban doxalin lañuy lañuy jël pour jéem a respecter ñëpp voilà. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax lan ngay yokk ci li nga xamante ni jot nañ ko waxtaan. bon à part ça euh, aussi je leen remercier encore je leen remercier parce que lii nii dafa aussi euh, li ngeen di di di di invité ay nit parce que moi je ne représente absolument rien donc voilà moi invité fini, donc pour jàppale pas là rôle lien a ngi koy société donc nous def lu centre aussi de leen merci beaucoup ñu lay ñaanal yàlla tamit li nga yaakaar yàlla bu mu tas ci sa liggéey bi nga xamante ni yaa ngi ci monsieur ndaw cant ngërëm ñeel na leen ne naa la saay su ne fu ne la ñuy jéem a dugg génn li nga xamante ni moo nekk ci sénégalais xelu sénégalais yi ku nekk am nga ci sa wàll xeebu ñu kenn monsieur ndaw comme ni mu ko waxee tekki nga dara dëggantaan ndax li ngay def ni am na solo macha allah kon cant ngërëm ñeel na leen jërëjëf ba beneen yoon